mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare di leen bége bu wóor yéen ñi xam ne yéen lañuy topp sunu chaîne bii di Wade TV pir ñoo ngi del si ak yeen si ñaan yi xam ni moom lañ leen di indil tey nag ñaan gi ñu leen di indil mi ngi dox si noob képp koo xamante ni am nga koy sayal seen diggante am ay jafe-jafe wala ngay bañ diggante ba am ay jafe-jafe mën ngaa jël ñaan gi nga liggéey ko comme nii ñu ko liggéey wala ngay goor am jigen goo xamni da ngay bëggante ak mom di def ci mom sa alal sa bëggo soxna sa wor la man nga jël ñaan gi bind ko ni ñu ko bindé su fekke da ngay jigen di bëggante ak ba go goor go wor la man nga jël ñaan gi nga jëfëndiko ko kom ni ñu ko def insha allah bu nu yàlla nangulee sunu defal ci tawféex wor du am mukk ci digënté bobé suñu mbokk yi da ngeen di gaaw di jëfandikoo secret bi balaa warante di am ngeen di soog a jóg di xeex sa xeex moom wóorul kon nit ki bu amee ku muy bëgganteel na gaaw lu si bu baax balaa warante di am ndax jamono ji kat bar nañu yàqu la ñoo xam ni woor rek moo leen yàqal ñu leen di wax nag ni ñaan gi indiwuñ ko ngir kenn di si yàq kenn dañu ko indi ngir bañ kenn wor kenn nit ñi di ànd ànd bu neex ànd bu sedd guy loolu moo tax ñu indi secret bi di leen ko wan muy ñaan gi xam ni soo ko liggéeyee nii ba pare dañ koy sox si bopp jën waaye nag su paree dafa ànd ak sikkar boo xam ni moom lañu koy sikkaree loole nag képp koo xam ni bëgg ngaa xam nan lañ koy defee danga ñu topp suñu chaîne bi ngeen di way di abonné nga wooñu incha allahu ñu wax la naka nga koy jëfandikoo ngeen di partager vidéo yi ca di ko aimé di ñu ndax xam ni yéen rek lañ fi nekkal lépp loo xam ni day di bégal incha allahu lépp loo xam ne day di amal njariñ incha allahu dañ ñu ko indi jaarale ko fii ba ngeen mën kaa jëfandikoo jërë ngeen jëf